ñun en en tant que vice-président ak yenen membres yi ñi nga xam ñi ngi joggé ci parti bari jóge ci ay coalition président assemblée nationale mo ñu convoqué bi mu convoqué mu génnee euh, ben courrier lettre bi nga xamné président groupe Benno Bokk Yaakaar bind na ko mhm. ko président assemblée nationale pour que ñu appliquer loi bi ak règlement intérieur manam ñu dindi li ñu naan euh, euh, déchéance mandat wu euh, député Aminata Touré. d'accord ci bir, mu am courrier bo xam dafa joggé ci benno joggé ci APR parti bi nga xam bobu boobu la Aminata Touré nekkoon. d'accord courrier Bobu, wax ne que day joxe information d'abord ne que Euh, député Aminata Touré démissionné na APR et ñaareel bi ñu appliqué euh, loi bi maanaam ñu def ko ñu remplacer ko si euh, si groupe benn Bokk Yaakaar ak ci assemblée nationale. ci loolu nag naturellement débat am bi débat bi amee vote yi am ñu ñuy defee vote yi ba pare mu am fukk ñoo xam ne dañu voté pour juróom voté contre.

constitution. Oui, constitution du Sénégal. du Sénégal. d'accord avec règlement intérieur assemblée nationale. d'accord chapitre 3 constitution déjà article 60 constitution Sénégal. oui Moné. que ne képp si sa parti automatiquement il am a déchéance sa mandat Mon da ngay sa mandat loolu li koy ñi koy appliqué loolu ba léegi mi ngi ci constitution yi dafa am loi organique boo xam ne moom moo koy appliqué ci biir loi organique bi koy appliqué donc mbir mi dafay yegg si bataaxal dafay yegg si si président assemblée nationale mu convoqué bureau bi bureau bi def li ñu naan constat ñaareel bi tamit ci biir règlement intérieur article 7 naka noonu dafa wax même chose d'accord léegi ci loolu moo tax ma leeral leeral procédure bi fan la jaar ban courrier moo yegg si groupe Bernard Bokk Oui. ci également courrier euh, courrier alliance pour la république d'accord mais mais mais pratiquement yeen ci constitution ko règlement intérieur de l'Assemblée nationale mais experts yu ITV également ci la expert la expert euh, parlementaire

li nga xam ne noonu la structure doxale du noonu am nga li ñu naan voie de recours est-ce que comprendre nga li ma si moom wax na ko way Sénégal amul ay ay taxalee caaxaan et cetera nit ñi dañu jaarale def li ñu war a def li nga xam ne sart moo tax ñu def ko maintenant koo xam ne moom xalaat na ne sart boobu am na loo xam ne dañ ko ci jalgati am na fu mu mën a jaar mais coow lu bari li wax télé wax rajo wax ay réseaux sociaux man mbokkuma ci yooyu man comme damay leeral rek homme d'état da ngay wax li nga xam ne moo nekk joxe information bi bi leer bi wóor ku mu doyul nga dem seet soo naan wax nga expert soo gi soo xalaatee no am na ñoo xam ne ñoo gën expert nga dem ci expert yooyu loolu doy la d'accord mais xam li nga wax ni dëgg la mais nit ñi xam nga mu leen tere commentaire d'accord nangu nañu ne li nga doon kooku moom waaw kooku moom loolu mooy démocratie mooy démocratie maanaam bu ko neex wax li nga li nga wax li nga li nga bëgg a wax d'accord te nga bañ a tooñ nit loolu moom mooy démocratie d'accord yow jàppoon ne jaay doole dafa am ci dossier Aminata Touré bii ni ci Assemblée nationale non pas du tout c'est-à-dire man li may wax lu leer la li nekk ci texte yi ci charte bi article de la constitution dafa leer nañ li nga xam ne tamit article 7 règlement intérieur dafa leer nañ. d'accord koo xam doyu la. amul ay porte presse amul ay taxaw ci radio, wala télé di wax loolu amul benn njëriñ da ngay dem fi mbaxana nekkee benn su fekkee ne am nga voie de recours voie de recours nga bëgg am nga foo xam mën nga dem voie de recours ñooñu ñoom ñooy saytu bu ñu saytoo ñoom ñoo yore mbirum yoon. man ci nekkuma ci <laughs> euh, par exemple juridiction yooyu juridiction yooyu. ñom ñoy xol saytu ndax mom limu wax lool la wala euh, ñi ñi def li waron def ñoo def nañ ko ni mu waré d'accord est-ce que tay euh, fi coalition Benno Bokk Yaakaar toll fi nga xamné amana ñu bëri soxla nañu pratiquement seen sen coalition bi gëna douf gëna gën yaatu comme niko président Macky Sall waxee nekk seen allié également japp nga ni yoon la wala japp daal vraiment kenn di quitter parti wala muy coalition non dama également loolu mhm. li li li li xew changé ci majorité parce que ni dama bëgg aussi def na ñaari dañu ci marathon budgétaire. Mhm. maanaam di Voter ay loi voté voté voté loi de finances, ministère Bougnon, nous ñu budget majorité dégagée, des fois même majorité dégagée, même à presque 90 députés contre euh, contre X mhm. dama bëggu loolu déjà ñu xam ne loolu yëpp am fi d'accord am na également euh, lu fi Oui premier ministre ñëw na fi dox euh, def li ñu euh, déclaration de politique euh, générale motion de censure am na fi mi motion de censure am amé gis ngeen large majorité bu dégagé wu contre ci motion bo xamné voté wul motion de censure d'accord donc il yëpp am na fi li nak Benen mbir moi, mooy li ma wax li 60 constitution wax l'article li article 7 règlement intérieur d'accord mais est-ce que l'État doit fragiliser un peu cette coalition bi Ben bokk à l'Assemblée nationale parce que mes Touré euh, c'est vrai que peut-être génn am quelqu'un kenn remplacer y ne quelqu'un qui remplacer si am quelqu'un qui remplacer oui kon quelqu'un na remplacer comprendre li ngay wax non si quelqu'un qui remplacer mais est-ce que l'État tey du jouer un peu cette majorité à l'Assemblée nationale ku ne xam ne tam gis na opposition aujourd'hui ci Assemblée nationale parce que li am li gëj na am wala bokk euh, nenn muy am Sénégal. non majorité bi 83 Là. donc la majorité elle est c'est une majorité qualifiée. d'accord maanaam 83 députés yoo xam ne Benno Bokk Yaakaar lañ nekk. su fekkee ne ay vote loi la ak yooyu 83 boo amee majorité mun nga voter loi maintenant débat parlementaire c'est pas obligatoirement lépp lu ñëw rek nit ñi dañ koy voté débat parlementaire dafa war a war a war a war a am solo. d'accord maanaam ñuy wax ñi naan waaw ñi naan déet mais ñi nga xam ne ñoo gën a virulent laa wax nii cest mm, si su ngeen xoolee bu baax li doon xew ci commission yi. ñi daan gën a critiquer euh, kii ñu indi nu mu tuddati loi loi yi ñu indi ñi ëpp liñ ko daan critiquer ministère bu mais c'était beaucoup plus la wa, wa, wa majorité que waa opposition donc débat parlementaire mon nek, non, débat parlementaire député bu nekk da ngay indi ce euh, pierre ci édifice bi madame nga pour Sénégal. oui mais ju tëj wàllu est-ce que jàpp nga ne le Touré war Y ko dàq. yaa ngi ba personnaliser. non parce qu'il y a beaucoup de questions di personnalisé. oui soo ma xamee rek xam ne man du ma dugg ci ay personnalisé. yaa ngi wax diw diw diw man man ba léegi député la. dañ lay laaj quoi dañ lay laaj. oui moo tax ma ne soo ma xamoon rek. doo dugg ci foofu parce que da ngay porte bu tëju la. man xam nga nan laa doon tudd tudduma la nit de dama ne la ab député article soixante constitution bi. mais loolu leer na monsieur lii la ko may ab député loolu leer na. mais est-ce que jàpp nga ne laa wax est-ce que tey jii Aminata Touré war nañ ko dàq tey est-ce que jàpp nga ne tey soo ma xamoon xam ne du ma la ci tontu doo ci tontu déedéet man du ma wax ci nit man li ma intéressé mooy bu fekkee ne ñun dañu nekk ci ab kuréel bu ñu naan pencum ndaw réew mi lépp li yoon ñu dawal ko ni mu waree maanaam bu fekkee ne charte bi lii la wax ñu topp chart bi d'accord te loolu moom moo xew démb d'accord article 60 constitution et article 7 règlement intérieur. d'accord lu leer maintenant les débats de détail à l'intérieur nit ñi nañ ko sur ci réseaux sociaux yi nit ñi nañ ko wax ci sociaux, mais man bokkuma ci débat yoyu d'accord ci d'ailleurs. ça fait 23 ans. que ça.